Sénégal day ah! France ñu moom léegi de marti Italie tribune yéene kaay ne Macky Sall Sall day ab marché boo ne lu tolloo juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards day la daal di Emmanuel Macron eh Samba njiital réew France ah waaw parce société bi nee ma la filiale France éclairage waaw ñooñee de xam naa dinañ ñoom dal nañ ca ndaxte at mi li ñu jëlee ko ci Sénégal njaay gi waaw ma ne la jëlee wuñ marché nag éclairage public bi gën a rëy ci adduna bi day ci ndorteelu 2018 bi la ilaha kaa ngi ne lu tolloo juróom fukki junni kon ci ay lampe miracle réew mi yëpp de déedéet ma ne la réew mi day boo ko xaajee ba muy ñetti xaaj ah benn xaaj ba dong day lañ sant tubaab yoo yee ñu daal di koy leeral ay laaj la la te dama ne gis nga projet ba wax lu tolloog ñetti atu yàlla day lay duré lu tolloog juróom fukki milliards yu tegas lëf cinquante sept milliards ay la la tribune yéene kaay ne te gis nga entreprise nag France googee ah ci waa EFA Sénégal day lañ daal di kon daw laaxu mën a gagné ne kon marché ba ci njàppandalu président Macky Sall te Emmanuel Macron moo fa jaar ay laaj la la te gis nga entreprise boobee ah ku la ko wax doo ko gëm yoon ma ne lu tolloog ñeen fukk ci ay liggéeykat donc quarante emploi kese ñu jébal leen ab marché boo xam ne kon juróom fukk ak juróom ñaar yu tëgas lëf la ci ay milliards te kat te jamono jooje waaw suñu gerte gaa ngi nii di lambar lambari kon mënuñu koo jaay yaa jum wala maa jum enquête yéene kaay ne looloo am te xoolal ma discours nag a addu yi nga xam ne day moom la kilifa gerte gi di xam le ne kon jënd ak njaayum gerte googu amul benn problème laa la wax waaye bi laay nga mel looloo tere nelaw na kilifa yi nga xam ne tey ñoom ñoo jiite réew de gerte waaw waaw gis nga chinois yi la woon ak waa arabie dem tey ji waa la ma ne la Macky Sall ak ñama la ñuy wuti gerte gi de jaay rek la ñuy bañ ko jaayee day looloon Casamance mukk parce que libération kay vox populi nee Casamance koo de rey nañ fa benn soldat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah. am na ñaari rebelle yoo xam ni ko teg nañ man maa la ko la ko tijjee yéene kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali yéene waaye gis nga kilifa yi nga ne nag maanaam ñoom ñoo jiite Sénégal day daal dina ñuy jokkoo nag ak yi nga ne ñoo jiite Qatar googee waaw parce que Karim Wade day bi nga ne kon moom lay politique noo ne la nguuru Sénégal gi d'accord uñ caa eh waay Samba xanaa gracier wuñ ko moomul boppam ne na kilifay Sénégal yi kay dañoo kalaame Karim Wade ba tax na kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Qatar googee daal di convoqué Karim Wade ko daar daar ngir nag mu daal di takkal kon activité politique yi nga xam ne kon moom la nekkee eh way samba ndaxte waa Qatar day la xamal Karim Wade daal mooy nag sa wàllu politique yi mën naa yàq jàmm ji nga xam ni kon mooy dox ci diggante Sénégal ak Qatar kon nag dakkal ko eh way eh way buru daal yi boog soppi ne Idrissa Seck ngay jàppale kon Khalifa Sall day ma ngay harcelé kon kii di Macky Sall laa la wax ubbil tamit ci nga xam ne bokkul woon ci ñin te ko na génnee prisonnier politique bi demal Kajoor yamu ca parce que Idrissa Seck nee na fanweeri fan ci yoru mars day ci la ñuy àtte Xalifa waaw danañu xam nag ba xam Macky Sall mi la justice bi nga xam ni ko bàyyi a eh, ñoo xam ne def lu ne wàng wàngaaral te dara fekku leen ca lii luy ndey Hey! waaw ma ne loolu tax journal bi laa la wax moom Farba Ngom ne président Macky Sall ci boppam kon dafa war a dàq maître Alioune Badara Cissé la ilaha illallah affaire ngay tas le tey mooy yéene kaay ne yuuxoo yaa xam yuuxu nduur yaa xam mbay ma ne la mbalax bu tas day moo am nag ca APR gay këru Macky Sall ga tas na ah maa face to face bu Aïssatou Diop Fall waaw le tey mooy yéene kaay nee na ba publicité ba tàmbalee ministre conseil bi di dane dafa am daal lu ko miti lool ci ànd bi xam ne mi ngi nekkoon di xaar nag émission ba waaye émission ba de fa mu mujjee ndaw lu naqari waar day taali le tee mooy nee na émission bi du dër naas parce que Youssou Ndour nag nee na am lu ko miti waaye bu dee am na ñu leen miti dëgg mooy ñoo toogoon di seetaan kon télé baax émission ba waaw animatrice ba ne fay layaam layaamal tagg Youssou Ndour laataa moo posé question maanaam émission ba daal Gris Bordeaux ak Balla Gaye lañ doon xaar mbir ma nag mujjee yaawu jaal ak mbay dollar de l'observateur nee na Youssou Ndour kay nee na Macky Sall mi lée yayool na deuxième mandat eh way Samba la mujj wax ca ndax ewe samba waaye lii moom santas la wala lan la daa ni Youssou Ndour danaan téye leen ma ma toog wa ilaa ma defi giraawaali musiba mbaaba kumba yaa xam mbay ci la tee mooy yéen kaa ne responsable yi lay waxal continuer leen rek tabax seeni R plus 3 R plus 4 daal di bàyyi askan wi nga xam ne ñoo leen wóolu woon ba teg leen faa waaye waaye continuer leen rek naan Idrissa Seck tournée mi muy tournée ni lée du dara naan grève yi nga APR continuer len ne tournée yi nga xam mom la Bougane Gueye Dany di tournée ni lée ay tiaxan la ay fola Bougane day wër ni rek di taxawalu ni di fo way way continuer len ci loolee bos sobli ne tournée yooyee nga xam kon Bougane Gueye Dany mi ngi koy tournée day ma nga woon nag démb ca Thiès kër kilifa diine ya and ak conseil bi Ahmed Saloum Dieng Bougane Gueye Dany day dem na ba Ndiassane khalif ba dalal ko ñaanal ko dem na tanaba Canaba khalif ba dalal ko ñaanal ko Bougane Gueye Dany yamu ca ndaxte dem na kër mam aladi njigéen njigéen ya dalal ko ñaanal ko dem na ci kër Serigne saliw Touré dajane tamit ak askanu nar ya nek ca Thiali ca Pikine Ouest ga tribune yéene kaay waa APR day kontaanuñ ci seen bi dee Pape Gorgui Ndong bu mu def très attention ah waaw parce que Abdoulaye Coly day naam APR la waaye nee ñi ngi jéggalu bu baax a baax waa Pikine yi nga xam ne ñun ñoo leen waxoon ñu woteel kon Benno Bokk Yaakaar parce que maire bi di Pape Gorgui Ndong ba dara booloo jee kon defu ko ca Pikine Ouest googee dama tali sax balee tali désensablement sax maire ba defu ba ministre ma lay attaqué booy ñaan ne ko lu ne mën naa am ca lamb joojee tout est possible <laughs> lamb booy ñaan deux ak sa Thiès un di ci parier wóorul de moo tax ma naan la alaaji tëjal